jàppalu nga leen tey ji ba ñu def leen ci kaso bi mhm. te wax dëgg yàlla ak lu mën a xew mhm. lu mën a xew mhm. du li ñu wax mais jéggulu bi rek waroon na la doy yow en tant que ministre de la république man jàpp naa ni bu fekkente ni dañ la tooñ en tant que mambay wala lu mën a xew ci kilifteef mais réseaux sociaux yëpp boo gisee kenn ku nekk wax je suis Allô Sénégal je présente mes excuses mais loolu man loolu bi ma ko gisee nga foncé ci sa ci sa plainte mais man mënatuma comprendre quoi franchement waaw boo mënul comprendre boo laajtee ma ma expliquer la nga mm-hmm. comprendre ñi seetaan comprendre bi ci njëkk man jàppalu ma leen. non da nga porté plainte kay boo porté plainte kay nag. absolument wax dëgg yàlla waaw. léegi yow ñoom gis nga li ñu def wala gisoo ko. si gis naa ko. jàpp nga ni ko loolu lu jaadu la. non gis naa loolu mais man li ma gis li ma mujjee gis laa jàpp. waaw waaw mooy maa ngi jégalu laa jàpp waaw déedéet. maa ngi jéggulu bi après dinañ ci egg. waaw mais dama ni jàpp nga ni ñoom liñ def noonu yoon la wala du yoon. non xam nga. Papa Ngagne waaw non xam nga du nekk pour tontu la ci loolu. Papa Ngagne waaw non non xaaral boo boo ma dégloo naa ba bàyyi ma déglu ma rek di nga di nga comprendre. def naa fukki ak ak ñaar ci nguur bokk ci ñi jiitu bokk ci ñi taxaw jàppante fi ak ay nit. yow wóor na la wóor yàlla ñi ñuy seetaan wóor na leen wóor yàlla ni ko tooñ nañ ma tooñaat ma tooñaat ma du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon may jéggale. li nga li nga jéggale moom bariwul. ah si non non yow kay Mbaye yow tribunal bi moom moom presque yoon tool nga ko def cest à ci lépp a ah, xoolal par exemple affaire Prodac bi ñaata nga ci ñaata nit nga ci porter plainte. mais bu ma ko njëkkee woon du egg fii nii. non non c'est-à-dire. loolu laa lay laaj dama ne affaire problème ñaata nit ñaata journaliste. boo ma ñaata ñaata nit. ba ci Ousmane Sonko. waaw cest ñaata nit nga ci porter plainte ci affaire Prodac. yow mën nga nangu ñu lay ji. loo def non ma mën nga nangu. mais parce que nit papa nga nit. waaw buñ la defee dara. Mhm. buñ la tuumalee dara. mu wóor la nu wóor yàlla defoo ko li yoon wax mooy da ngay dem ca yoon. soo mënta baale ah. waaw su fekkee mënoo baale. waaw mais léegi est-ce que man ce que mën nga baal koo xam ne bu xëyee wax mu ubale àddina bi yëpp man aw ma njaboot wax yu ñaaw yi ñu wax bu njëkk daan na am may jëllale man xëy naa ñu jël fii benn photo benn fi vidéo nit ni kii jabaru Mame Mbaye la mu yor ay xaalis réew mi yëpp xam ni que du dëgg ma dem di porter plainte nit woo ma ni ma jaru ko. ma bàyyi ah. ba tey jii nii koo wax mun la jabaru Mame Mbaye la mhm. man xëy naa suba teel ci réseau sociaux yi comme nii mu commencé ñu ni Mame Mbaye sàcc na vingt neuf milliards mhm. ma toog bàyyi muy continuer di continuer di continuer ba egg ci presse écrite di ko bind mhm. te ñu xam journaliste lan la war a def ci réseaux sociaux yi egg nañ foo xam ni waaye sa téléphone ngay jël wax lu la neex donc bul wax ni que ci plainte nga dëkk. waaw ah, d'accord mais mais donc bul wax ni que waxaaral rek bul wax ni que ci jàpp ñi ñi nga dëkk. Mm-hmm. dañ ma tooñ. waaw bii yoon tooñuñu ma man rek. Mm-hmm. man homme politique laa man xam naa tàmm naa. man li may seet du du lu ñu ñuy wax li may seet du lu ñu ñuy def. sama diggante ak yàlla d'abord laay seet loolu laay jiital sama diggante ak yàlla sama borom beneen bi ci topp ma xool sama diggante ak ki ma dénk ci ñaari yoon yooyu laay teg sama xalaat sama digganteeg yàlla bu ma ci mënee tëdd nelaw alhamdulilah ki ma dénk kóolute gi bu ma xoolee sama digganteeg moom mu ñoŋ alhamdulilah li ñeneen ñuy wax day yàgg rek mais dina ma sa den yoon bii dañ cee tudd sa jabar. non bu doon sama jabar du am problème tant que man ak sama jabar la rek moom yàlla may na ko mu xam jëkkëram ci li mu dugg li mu bokk donc moom préparé na boppam ci dégg lu ne musoo ko dégg mu wax musoo ko gis mu wax te pourtant kuñ xamoon la ci ginnaaw ku daan wax la ku daan jël kàddu la ku daan jël position citoyenne la. Mhm. mais bi mu sëyee ak man xam na ci liñ dugg mu décidé jàppale ma ci loolu di muñ. Mhm. mais bii yoon dañoo tudd jabaru jàmburu yeneen jabaru jàmburu kër googu du man rek maa fa takk jabar ñeneen ñi ñu ciy tudd dañoo am ay jëkkër njëkk sëy sama jabar nekk ca bitim réew ñu doon ay père de famille man mën naa baale àqu jàmburu bu dee sama àq man mën naa ko def naa ko defaat ko amul problème mais keneen ki nga xam ni politiqueul tànnul dugg ci pëcc xoo bi nekk France yor njabootam di liggéey di daan dooleem yor njabootam ci sutura nga ñëw xëy rek ni ko bàcc ci mbedd mi wax wax yu salte wax wax yu ñaaw ca tegoo ko ci dara parce que journaliste nga da ngay def émission papa ngañ loolu moo yàq réew mi. Mhm. d'accord alors lan nga ci jublu bi ngay porter plainte. mais li ma pour mu leer. non mais déedéet mais. wala non non parce que bu fekkee pour mu leer la. waaw mais dara gën leer. waaw ñoo ngi jégalu dañoo juum. waaw. mais man dama ni dara gën te leer loolu. waaw. tey fépp fu ñu ko waxoon xam nañ ni du dëgg. waaw mais loolu loolu kon jeex na. waaw mais ne naa la du man rek lañ tooñ. mais léegi est-ce d'accord du yow rek la ñu tooñ. waaw est-ce que man mën naa baale àqu jàmbur. mais xam nga xam nga ñeneen ñi nga wax. tooñ ñu ne ma baale àqu jàmbur. mais ñooñu porté wuñ plainte yow yaa porté plainte ma mbay. lu la wóor ni man man la ci sama tur fés. plainte ya nekk France da nga xam ku ko déposé. plainte bi ñuy dépo bi ñuy waaj a déposé Angleterre du man maa ngi fi da nga xam ku koy wo ku ko déposé. apa ngañ bu fekkee ni que yéen da ngeen di defendre nit mën a jël caméra am toog wax lu ko neex xëy dem tëdd tëdd nelaw li muy wax tegu ko ci dara lu dëgg yàq nit yàq ay mbokkam fii boo tuddee nit tuddoo nit ka rek am na jabar am na ay doom am na ay mbokk am na ay goro sa jabaram am na ay nijaay am na ay cousine am na ay leneen nga xëy réew mi yépp nga ubale ko ni lii moo am ci famille boobu après del dafa ni da ngay jël micro rek ni baal ma àq man amuma problème man tàmm naa loolu man jiiñ nañ mu fii vingt neuf milliards seen waa jooju taxaw ne ni yor na rapport ci këram bu ma téye te dem man tàmm naa loolu mais ki nga xam ni man ni ma tànni politique moom noonu la tànnee beddeeku ci politique yor njabootam ci sutura nga xëy ni ko màpp ci télé bi après nga bëgg ko jàllale ci perte profit loolu moo yàq réew mi lii ngeen di def nii c'est pas défendre la liberté. c'est défendre le libertinage. d'accord loolu du liberté Alors, libertinage la. d'accord d'accord ma mbay mhm. actuellement. waaw ñaata nit lañ ci jàppagum. mais xawma dañu porter plainte cité ay nit man li ma porte li plant bi li ci nekk mat na vingt cinq. du ñooñu rek mais am na ñu toog tey seen chaîne YouTube waaraate ba pare ni kii kii lislaam rey na ko ki mu ko séqal xawma lan dee na kii nit ku. bon la te ñooñu tam bokk nañ ci bi mais bañ a bokk. bañ boq bokk mais yéen réew mi li ko taal mooy wax yu mel nii diw sàcc la fekk diw deful dara ñu maslaa ko après nit ñi def dugal seen biir xol yi ñii ay sàcc la ah ñii dañuy daganal góor jigéen nit ñi teguñu ko fenn. nit ñi di wax rek téye sa téléphone boo xëyee wax lu yàq nit ñi lu la neex après dem ñibbi ñu la jàppee ñu ni woy woy baal ko dafa am njaboot yow ki ngay yàq amul njaboot. après ñi ñu bëgg a dajaloo naa non ay liberté ak du liberté libertinage la libertinage c'est kon mais bu fekkee bu ñu nangoo lii ngeen di wax nii mooy ci ku nekk fajali boppam la jëm te buñ eggee ci fajali ku nekk di fajal sa bopp. ci ci ndumbelaan lañuy ñuy dem ci ndumbelaan lañu dem nekkatuñ ci réew. Mhm. d'accord nit ku wàcc yoon. Mhm. yoon dafa war a dal sa kaw. d'accord alors Mame Mbaye li nga wax. Mhm. ñu bari mën nañ ko ñaaw parce aussi du dañuy défendre loolu. ah si non non non attends dama lay expliquer. parce que boo taxawee nga ni ma dañ la baalu baalu woo. non loolu moom dama ciy persister. waaw dama dama jàpp ni. mais man mënuma baal àqu jàmbur mais dama jàpp ni Mambay. Uh-huh. affaire bi bu eggee fii. waaw ñu nekk ay jeunes yoo xam ni au moins ñi ngi liggéey ci lu jëm ci wàllu liberté. Mm-hmm. ak ak ak ak démocratie mën nañu wax. waaw tey bu fekkente ni juum nañu ci mën naa wax. parce que njuumte lay doon. nit mën nga jël benn information boo xam ne fi nga ko jëlee peut-être fiabulul. wala leneen am ci mais loolu bu amee bi yow ba nga ba nga reconnaître ko. xam ni juum nga. mais soo jégaloo nit ki. mu nekk kilifa ci biir réew mi. tey doo yow doo n'importe qui. war nga mën a baale. man nee naa la tooñ mën nga war nga mën baale ba pare sàkku ñu baal leen aussi. ma man du ma sàkkul kenn ñu baal ko parce que man lépp lu may def dama koy natt ci ñaar mooy li ma la wax sama diggante ak sama borom du ma wax lu ma wóorul sama taxawaay bi ngay wax sànq bokk na ci heure bu dara amee ma ñëw toog wax mosuñu maa plainte parce que du ma wax lu ma amul firnde du ma ko def lu wax ji dëgër dëgër dëgër compliqué balaa maa toog saytu naa ko saytuwaat ko te damay jàpp ni ni ma koy waxee ci tele bi noonu laa ko mën a waxee tribunal ca ëllëg si dinaa ko wax ci sama bàmmeel am na nag ñoo xam ne boobu intéressé wu mais man dama gëm ni que lii may wax nii bu fekkee ni que du dëgg yàlla mën na xam ndax dëgg la wala du dëgg damay tricher mais dama ni du démocratie du liberté nga dugg ci kër jàmburu wax fa wax ju ñaaw jëmale woo ko du njuumte xam nga xalam nga lan mooy juum mooy comme ni ñuy waxtaane ni dara rëcc mais toog ni diw moo def lii xamoon naa ni lii dina ko dal àqu diwoo ko dal papa nga man nee nañ man ci problème ak waa jii nii nee nañ Mame Mbaye dafa feebar Mame Mbaye dafa tëdd déggoo ma ma plainte kenn damay xëy liggéey si ñoo jàkkaarloo bureau ñi ma bëgg a gis laay gis ma nekk ci li ma nekk. feebar moom loo ci porté plainte. ah déedéet. ah non non feebar moom. non non mais am na ñu dem ba ni Mame Mbaye xaw ma mënatul wax. Ah, wala nga xëy war a dem tribunal ñu ne la noo mënta dox. ñoom nañ delloo si seen xel yi am réew kenn du ko teg ak jubadi mm-hmm. jubadi. mooy wax lu dul dëgg li gën a bon ci jubadi li gën a li gën a mag ci di mooy di ut dara teg ko ci ay nax ay sos ak ay pexe. d'accord alors am réew aussi loolu mujjantal am réew aussi ma ma ni mujjantal mujjantalu loolu mooy naax saay. d'accord mais am réew aussi. Mhm. war nañ ci egg. Mhm. Euh, ba du lu jóg rek ñu jàpp ni kaso da cee war a am àll wàll. Mhm. par exemple nit ki bu fekkente ni daf la tooñ. war ngeen mën a egg ci waxtaan. yaa ma tooñ li nga wax du dëgg. bindal ni du dëgg ñëpp xam ne li nga wax du dëgg. mu jeex waaw mais loolu bu amee. mais mu saafaraw. waaw nangu na mais maa la tooñ. waaw man maa la tooñ. li ma la li ma la waxal du dëgg. waaw fa ma ko waxee woon ma dellu fa wax ni li ma la waxal du dëgg. waaw mu jeex. mais loolu bu dee man rek nangu na. ah non xam nga yaa ngi koy compliqué. mais déedéet soo ci bëggee boole kenn. déedéet non yaa mais nee naa la dafa am yeneen ñaari borom njaboot ñett. am mais dafa du du mambay ak jabaram rek la ñu wax wala du mambay ak benn jigéen bu nekk fee rek dañ ci tudd ay mais nee naa la man sama soxna dafa am ñaari rak yoo xam ne nekkuñu ci réew mi ñoo ko njëkk a sëy ñi ngi fële ak seen i jëkkër yu mel noonu bu amee yow xam nga réseaux sociaux yi li ñuy wax ku ci nekk day ku ci nekk day jéem a mais man du ma baale àqu ñooñu mënuma baale àqu jàmburu d'accord man bu dee man sama bopp aw nee naa la man sama bopp tàmm naa ko naqari na la de. non mais non naqari na ma parce que. oui ni ngay waxee non xam nga lu tax naqari na ma. lu tax mu war la naqari laalewuloo ci taqewoo ci. waaw non xam nga lu tax non. loo xam ni laalewuloo ci. taqew la naqari à ce point. pourquoi li tax mu naqari ma. mooy dama dem ci kër takk fa jabar. waaw sama yeneen ñaari nawle takk fa jabar. man ma nekk ci li ma nekk ñoom ñu nekk ci lu ñu tànn nekk ci lu ñu nekk yor seen njaboot. ci sutura ak ci kumpa ñu jaare ci man def leen loo xam ni yàlla ak man maa tax te samay nawle lañ ñu tooñ leen parce que tout simplement man ak ñoom dañoo daje ci kër gi ñu takke soxna ñoom diwuñu ma loolu wanuñu ma loolu xëy na sax taxawa am taxawaay man bi ma ci am ñoom bëgguñu loolu. dañ la wan ni am na lu leen ci naqari ñoom. amee ah, dina la mais Papa Ngagne kan mooy xëy tudd gis ñuy tudd sa jabar ci ay réseaux sociaux ay xale yu ndaw toog di wax ay wax yu ñaaw ca nga am njaboot ñoom ñu nekk ak seen yeneen i nawle léegi nga bëgg a jël ak loolu yëpp après nga ni non maa mbay na leen baal. Mambay baale na lu la lool même nit yooyu ñooy wax ni que Mambay dafa feebar Mambay àqu xaw ma tëral ak àqu Masamba daluma àqu ma Demba daluma sama àqu moo leen dal ñoom. keneen ki ngay laam-laamee naan bu ñu la waxee nga plainte mais attends waa ji moo taxaw ci tele tele yëpp tegu mu ni rapport bi bi Mambay luubalee xaalis bi yor naa ko. waaw ñu dem tribunal andiw ko. Mhm. feneen fi ñu ko teg non ma mbay day attaqué Ousmane Sonko. ñu condamné ko nga ni alhamdulilah. non waxuma. non si si non non non ñu condamné ko nga ni alhamdulilah. am naa ci ndam affaire bi jeex na. déedéet ñu tegaat ci ay fan. nga daal di euh, euh, daal di kii daal di comment dirais-je encore. daal di euh, daal di bu ma wax loolu ma waxul te maa ngi nii toog. man kay li may wax ñeme naa ko. non ci sa ci sa page Facebook. ñëpp lire nañ li ngi ci wax man aw ma page Facebook aw ma page Instagram. mais non non li ñuy wax ni ma lu man a xew. Papa Ngagne yaa xam ci Twitter nga ko waxee. Papa Ngagne yaa xam foo ko wax Mame Mbaye li wax nii moom gis nañ ko. mais dama lay wax ah non doo ma wax ni ma ko. moom moo tax ma ni la réew ko teg ay foog naa aw ma page Facebook. aw ma page ah, ma page Twitter xaaral rek moo wax la non c'est pas c'est pas grave ah mais boo ma dégloo ma wax ah, la boo ma dégloo ma expliqué la am na ñu ubbi ministère bi day am page dafa am ñu ñuy dafa am ñu ñuy fay ñu koy administrer loolu ak man bokkul. non léegi munoo wax ni que de li nga bëgg a wax. waaw maa ko yóbbu. porté maa porté plainte. waaw parce que dafa toog ci télé bi. ni yor naa ko dañoo foog ni li ñuy nëbb yëpp xamuñu sax fi ñuy jële kayit. ñu dem tribunal indiwul kayit. Mhm. beneen ñu dem beneen yoon mu demande renvoi ñu dem beneen yoon. mu toog toogaat ci page live am yooyu daan dinaa leen wan ni que ñii li ñuy wax lépp ay caaxaar lañ dossier yëpp maa ko yor mi ngi nii sama loxo ñu dem indiwul këyit moom moo tëjlu boppam moom moo tooñ boppam moom moo teg boppam li ko dal léegi nag man mais man man man damay liggéey léegi léegi nii ci wax ji du nee nga après bu sa grand bi pare buy dem daf daf may yóbbaale mais damay liggéey. xam nga mënaguma jël retraite fa may liggéey ci li ma doon yëngu lay doon mais mënuma fa dem ak tuuma boo xam ni dañ naan non opposant boobu nekkoon Sénégal doon taal réew mi waxoon na ni ko da nga sàcc foog ma indi kayit ni leen. non mais donte waxoon na ko may ma rek donte waxoon na ko donc yëf yi noonu lay doxe papa ngañ li dul dëgg du yoon. mooy nga eh, toog fii di défendre koo xam ni toog na. xam nga si da koy défendre xaaral. sénégalais bu koy défendre défendre dëgg. d'accord nit bu waxee dara da koy wóor. ku toog ci penc mi di wax. daf la war a wóor. kuy wax loo xamul matoo njiit. kuy wax lu dul dëgg matoo njiit. kuy wax euh, loo maîtriser wul mais waroo wax ci mbooloo. mais nag yéen press bi li ngeen bëgg indi moo normalul da ngeen di jël médecin jël jël médecin di discuter ci médecine nga indi médecin ku def bac plus sept ci médecine nga teg koo xam ni plombier la nga bëgg ñu werante ci feebar. d'accord nit du wax ci lu mu xamul. journaliste du wax ci lu ko wóorul. d'accord loolu indi na fi ay dégâts ay bakkan rot nañ ci mais loolu waratu leen ko nangu. et ça c'est pas défendre la démocratie c'est défendre le libertinage une personne qui se dispense de vérité qui se dispense du droit et qui veut bu bëgg a nekk ci penc mi di wax lu ko neex mais loolu bu ngeen ko nangoo man de du ma ko nangu te defe naa buñ ko nangoo loolu mooy yàq réew mi xam nga loolu nangu woo ko ba yóbbu nga ko ci yoon baate nañ ko kon absolument waaw kon nangu jarul ngay nekk fii di ci wax ba di ci wax journaliste yi di dugg ci yeneen détail mais ay journaliste la non d' accord mais bëgguma nga dugg xam nga lu ma bëgg journaliste la d' ma bëgg mais ko def mais s'il vous plaît bu ma dafa am lu ma bëgg leeral ko mhm. parce que dafa am benn affaire boo évacuer mhm. te mënuma ko comprendre mooy ban mooy sa sa sa page mhm. Facebook la